maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Mariam Diop bokk ci parti Thierno Alassane sàll ñu koy wax République des valeurs maa teewal fii représenté parti bi pour wax ci li nga xamante ni moo ruubee réew mi ak askan bi ci waxtu yi nga xamante ni fii la toll. di nii nag sama mbokk jigéen ñi nga xamante ni elles waa RV di ay femmes battantes tàkk leen seen bopp macha allah. di nuyu suñu coordonnateur Massamba Diop monsieur Massamba Diop di kenn si di nuyu suñu président Thierno Alassane sàll mi nga xamante ni ku nekk xam na ni taxawaayam si problème bii nga xamante ni moo am daw si daayu si delluwu si ginnaaw te bañu si dara nag. li waral wax ji nag yéen ñëpp xam ngeen ko mooy que ni fii ñu toll instant yi ñu toll tembe tembe tembe. ñoom ñu ngi si assemblée nationale nekk pour xeexal askan wi pour taxawal askan wi te mu nekk loo xam ne lii lu jaadu la ndax loolu lañ fa tegee loolu lañ leen fa tegee ndax xam ngeen ni président Macky Sall lépp lu muy def boobu ba léegi li mu siy jublu rek mooy naka lay gën a toogaatee si Sénégal naka lay def ba gën fee mën a yàgg naka lay def ba nga xamante ni lépp lu mu bëgg a def rek. dina ko def jaarale ko si ay nitam yi nga xamante ne ñoo nekk foofu nga xamante ne moom moo leen téye si ay loxoom bañ nañ ko ba bu ñuy voté dañ naan lu ñu Macky Sall sant rek loolu la ñuy def te yaakaar naa ni député kenn tegeewu ko assemblée nationale pour loolu ndax Macky boo leen di seet en deux 2019 dafa ne woon bañ ko nee wàññil sa mandat dafa ne woon déedéet mënu ko parce que constitution bi may ko ko kon lan moo tax mu nit ba léegi di profiter si benn affaire pour bëgg laal suñu constitution ñun waa RV ñun duñu ko nangu du jàll mun ko jàll duñu ko nangu te li ñuy bañ ñu ngi koy bañ le li ñuy bañ ñu koy bañ le suñu président Thierno Alassane Sall bi nga xamante ne ñu ngi si ginnaawam bépp xeex bu mu taxaw ñu ngi nekk si ginnaawam di ko dooleel di ko jàppale parce que ñun ñëpp xam nañ ni ko dëgg la àdduna yëpp léegi xam na ne lu dëgg la ndax moom du du du faral pouvoir wala muy faral opposition ba mu nekkee Thierno ba léegi ku nekk xam nga ko si dëgg dëggam si lépp la ko teg que mu concerné pouvoir bi wala muy opposition. kon boobu ñun ñi ngi si ginnaawam di ko jàppale ba nga xamante ni lii muy xeex di bañ président Macky Sall ndërmeelal sunu constitution ndax si la jëm loolu la bëgg toogaat fi pour yeneen ñaari at mënul nekk. dafa bëgg a ndërmeeral constitution bi parce que loi boo xamante ni lu ñëpp voté la defe naa moom waxoon na ko kenn amul droit nga laal ko kon li may ñaan mooy maa ngi ñaan waa àddina yëpp waa Sénégal yëpp surtout ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal lépp lu ñu woote ñëpp nañu jug ñu taxaw si ñun ñëpp nañu jug ñu taxaw si ñu xeexandoo ko ndax defe naa bu ñu deful noonu ñu cofamtal lii bépp président boo xamante ne amati nañ ko saa yu nekkee président bu toogee heure bu ko neexee mën na laal suñu constitution jal jalgati ko def si li nga xamante ni lu ko neex la lu ko saf la looloo tax président Thierno Alassane Sall yor kàddoom nekk di wax ak ñëpp di wax li nga xamante ne aussi moom la gëm mooy que ne amul parparloo li may wax muy nekk dëgg mu valable si pouvoir muy valable tam aussi si opposition kon ñi ngi woo surtout waa Thiès ñëpp ñu taxaw. ñëpp jug taxaw xeex le président Thierno Alassane Sall li nga xamante ne mi ngi koy xeex muy toujours di nekk si dëgg askan bi nekk si dëgg di dox si dëgg ndax dëgg rek moom moo mën a yor réew askan bi dañ ko bokk dañ xamante ni ñoo bokk dëkk bi muy kilifa diine yi ñu leen di nuyu kon lépp lu ñu fiy def ko war a waxtaane ñoo ko seq kilifa diine yi ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax ne ñoom ñooy politiciens yi nekk si dëgg bi di si si politique bi bu weesoo loolu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si base bi Sénégal ñoo ko bokk kon lépp lu ñuy wax dañ ko war a waxtaan lu ñuy def dañ ko war a waxtaane ba ñëpp ànd si ñëpp d'accord si mais amul droit forcer dara kon fii kenn waru fee forcer dara Macky Sall li mu bëgg duñ ko ko may duñ ko may muy forcer di laal suñu constitution di ndërmeerul kon ni di xam ne ñu ngi koy xeex mu nekk xeex boo xamante ni xeex bu noble la kon ñu ngi woo askan bi yëpp xeex bii du xeexu Thierno Alassane Sall du xeexu benn nit du xeexu ñaari nit du xeexu kenn xeexu opposition bi yëpp la kon nit ñi ñëpp ñëpp àndandoo taxawandoo xeex nga xamante ni moo nar a yàq suñu constitution bi ba ku jubati rek am si buntu boo jaar pour mën a def lu la neex kon Sénégal na ñëpp jug taxaw xeex li nga xamante ni président Alassane Sall moom lay xeex képp ku nekk si opposition bi war nga koo xeex kon ñu ñëpp si xeex bi. asalaamaaleykum.